voilà ñu nekk fi ak suñu papa Amadou Katy Diop papa ginnaaw bi ñu la nuyoo dañ lay laaj lan mooy fi sa teewaay tey ci bis bi fii ci. waaw teewaay bi mooy représenté Ndakaaru rek euh, nu ma tuddee l' de Dakar en tant qu' entraîneur moo tax mu ñëw fii tey fii pour le le drapeau du chef de l' état ñëw ci drapeau chef de l' état fii ci Diourbel ah bi nga ne tëll tey ci stade bi lan la lay fàttali. waaw damay fàttali rek bi Yékini drapeau chef de l'État bi Yékini Aziz Diallo defoon final waaw en Fatick loolu rek la may rappelé wu waaw. Ah. voilà ñu gis ni tey mbëri Dakar yi yow yaa leen encadré. est-ce que yomboon na nga def sélection bi wala déet. waaw non non non parce que sélection bi yomboon na quand même euh, sélection bi difficile waaw sélection bi comme tànn la rek <laughs> sélectionné la euh, temps euh, difficile quoi waaw. waaw am na am wuute bon am aussi parce que bon li ma si naqari tuuti mooy. toujours da les xam ne ba léegi nag région yi war vraiment ñi ngi ñi ngi am euh, euh, en matière de lutte traditionnelle ba de dafa mel ni régresser parce que ba peut te dire que man euh, Bernard Dakar responsable Dakar coince ma ne me du ma fi bëre ma daw bëre ji Thiès 1976 ah, laa lay wax de ma daw bëre ji Thiès donc d'aller di gagné Thiès mu daal di le seul responsable ñu changé waat ne amatul gagné par équipe gagné gagné par poids vous bu war a kon ba léegi nag ñu ngi affaire sélection sur les régions ba légui euh sélection ñu ngi jël di jël si dans les autres régions yi nga xamné ñu ëpp bëri di leen fa jëli donc région mu nekk normalement war nañ fu def mu développer la lutte bu baax ñu financer leen ba nga xamné bi légui la fa daan am bu jëk da nga daan yow gis bu euh Mayoro député ah Louga di daan une très bonne équipe ah Saint-Louis dañuy bëri Matam mais boo xolé xoolee dafa ñi xaw a regresser parce que pourquoi parce que le fay lamb di tourner mo tourner tout waaw kon nak war nañu fexe dans les régions ñu gëna a ba xamné ne région bu si nekk yaay indi sa propre équipe do jël ji do doo jéggaan ji fe fen fen naan yaa ngi ji wuti ji ay équipe yu jógee ay Kaolack ay euh, euh, fatiga ak yooyu quoi. liggéey bi est-ce que du loxol CNG mo ci déssé duggu ba tax mu démé ni loxo loxo CNG bi loxo état eh, loxo bi état ba ngi fi parce que li ma lay wax maanaam la CNG ma ngi def lool ba légui loolu ngi existé mais kooku dafa wara a am doole parce que xam nga bu ñaan lamb lamb lamb làmb làmb ngi tun lamb ngi tun té loolu Dakar la rek fay nañu yoy yooyu yi c'est important professionnel la ñuy fay ñoo làmb làmb ji am am am nit mais léegi nag fon ba ñooñu daan indil ay ay làmb nga gis ku si nekk da nga daan indi say say cosaanum say cosaanum say cosaanum réew maanaam Kolda bu ñu ñëwee nga xam ne ñii waa Kolda la ah, ñu ah dañuy indi seen i façon yi ngemba seen façon yi tëggin mais yooyu moom manqué te yooyu yëpp da daan am ah tukulóor yi ñu daan ñëw da nga daan ñëw ñu gis tukulóor yi ñëw indi seen seen seen seen tëggkatu làmb seen ah, seen ngemb seen seen ngemb mais yooyu amatul. ah waaw loolu nag mooy base ba loolu nag lañu ñu war a dellu pour ma loolu mooy Sénégal voilà. mais papa ñu gis la nga indi nga xale yi nga indi ñu gis ci Serigne Ndiaye 2 lu waral Serigne Ndiaye 2. waaw mais dafa bëgg a Serigne Ndiaye fi mu nekk moom yaramam fi mu nekk dafa toll si bëre te bëgg bëgg bëgg na bëre te bëgg na titre bi waaw parce que le champion da ngay bëgg dangay def lépp da ñëw si ñëw si jël titre champion di Sénégal ah. jël tamit nga dem sur le plan international nga génne nga daal di jël te foofu tamit titre champion d'Afrique ah war nga jël lépp nga war a jël mais si champion peut-être am nga sens professionnel fii si làmb ji fii rek nga nga génn ñu naan ñu la ñu lay coow léegi nga boo demee ba toog nag am yoo xam ne daf lay manqué si sa carrière alors que lépp nga war a def waaw da nga war a def la lutte olympique da nga war a def champion sur la traditionnelle da nga war a def champion sur la lutte avec Fram nga daal di nga nga nga nga nga nga complet waaw. gu mujj bi. waaw di ñaan rek comme ni ma ko waxee sa njëlbeen ba rek li ñuy ñaan. Euh, vraiment lamb gën a développé ba ñu ko xam ne bi léegi daal kenn dootul dem di sélectionné fenn équipe équipe bu si nekk rek de région bu si nekk rek boo ñëwee di nga équipe complète danañ fekk ñooñu tamit di am ay compétition assez de compétition gars yi jàppaleen la si si